e fañinte ibrahima to mi fam fam mbalamo kew bareɓe siri fontiñade teɓe jiran ndin fañinde yimela kosbam ban ganna kosbanne laftanna dow ko wodatila bari baga sol be daɓe koleyaren foytema inko moy <laughs> mune mo inkoti abulannomagata jannom ngoy na tama seroja juma ñing co e wala fammu bayri sa tew kono mo jamali e fam mulundi kon tol bare ni nata jan dron ibalon nako jannon dinkira fonde Foi mu kapental ti bang foi mu fital ti bang foy mu welda manol ti bang joran wo joran e sulata ni dunda jang isa soto kono to ngatandi ke barin se wotal de na foyle jannum inkoti isulata joran wo jorana ibasrola jan jannum na dinkira bati jimbex na dinkira do be sukuda traffic light aka munda ko sukuda traffic light dinkira do balbul hade sukuda traffic light na dinkira do biji anin inko dunia be bulo kono

is the blue stand for? River Gambia. What is the green stand for? Agriculture. Agriculture. Ah. Bintu. Bintu. Moo design Gambian flag. Oli Sane mo suume. Suumaake. ha ah, ji hawana nunde nunde lake ya jola sa sehu angas mo cameraman mi jola ah mhm. sumay eh? ah ko sumay eh, sumutude ah, jobe jobe jaw uh, ah, naka nunde wahele ka uh, furia uh, naka la ekangulay eh ah furia ekangulay eh okay gamen flag bi ñata color mo fa nek 5 can you name them red white blue white green mm. mm -hmm. ah okay what does the red stand for <laughs> River Gambia. White. Peace. Blue. Oh, river bi mooy blue bi. <laughs> oh my sky. Who is the Gambian flag? yàlla teeloo yëpp di. non waa green kon. green <laughs> flag bi ñaata kola ñoo fa five. five. néemal red white blue white green. Mm. waaw. Ah, ah, ah, waaye red bi lan la stand for. red bi mu ngi stand for son. blue wa naka white. white bi peace. ok lii nii bi nag eh, blue bi. blue bi mu ngi stand for the sky. ok green bi nag. green bi mu ngi mu ngi stand for di ñax yi ñax yi ñax yu green yeeg. yii yu green yii nii. kan moo design Gambian flag bi. ah loolu de ma xaw ma ko nag wax dëgg yàlla. jërëjëf. Adam. <laughs> Adam, loo nekk di def si trade fair bi fii. dama ñëw seet si trade fair bi rek. Hmm. ma xool waaw. ah ok Gambian flag bi ñaata couleur ñoo four colors ñoo can you name them. red white blue and green. ah yeah. ah ok What does the red stand for. the red it stands for the sun. blue white. white peace. blue. the sea. Hmm. okay green bi. agriculture. Hmm. who designed the Gambian flag. I don't know. <laughs> I don't know. Thank you. <laughs> ah Gambian flag bi ñaata collation ñoo fa nekk. ah. Gambian néemal ma gaay. <laughs> red blue white green. Ah. kan moo design Gambian flag bi. bàyyi <laughs> ma dégg nga. Fatima ah, yow loo dee def si traitoire bi. Ah. flag bi ñaata collation ñoo fa nekk. four. waa même flag bi ñaata collation ñoo fa nekk. nine moo fa nekk. nine. néemal ma gaay. red hmm. white hmm. pink yellow green orange move. Hmm. kan moo design kan moo design Gambian flag. kooku ya, suma maam la. naka la tudd. Sir Dawda Jawara. Royapa. Yaba. Nga kan ne naka yaa tudd kan naka. Nuha. noir yow loo nekk def si trade bi fii boy maa ngay jaay booy hmm. yeah soo naka business bi ah sant yàlla ñu ngi si kawam rek hmm. yeah ah ok yow ah si Gambian flag bi ñaata couleurs ñoo fa nekk red white blue white green ah ñaata la red white blue white green ñaata la five waaw ok léegi yow ah, red bi lan stand for red stand for boobu xaw ma ko Why? waaye. stand for what. Why stand for peace. blue stand for. blue stand for River Gambia. Uh-huh. yeah. ah okay blue stand for agriculture. Hmm. yeah. who designed the Gambian flag. I don't know that. I I don't know that. thank you. Ah, hmm. ku lu baax daal na lu baax rek na ñëw. everything am Gambian flag binyata ñaata collation fa nekk. Gambian flag four. ñemal ma gaay Red, white, blue, white, green. Red bi la la stand for. Red stand for the sun. White. Blue stand for River Gambia. White. White stand for unity and peace. Green. Agriculture. Who designed the Gambian flag? Gambian flag. Uh, other uh, one, I don't know. <laughs> huh? Design it. Mm. mm. I think it's the Gambia mm. when we have the independence. Who designed it? Who was the person who drew it? Design it. Mm. ku doon draw maagi ma anaka maapi Gambia bi fa la taxaw. ku doon draw maagi Gambia bi foofu mm. <laughs> ma xaw ma ko. loolu taxaw. because dama ko laaj naka. maa ngi fay yaa tudd naka. Seynabou. Seynabou Gambian flag bi ñaata colors moo fa nekk. five. red white blue white green. Uh, white bi red bi lan la stand <laughs> red bi lu mu stand xamoon naa ko de fàtte naa white bi lan la stand peace green is it the environment or the river river yeah. blue blue ki mu ma ko wax de lan la ku design ku design Gambian flag bi naka la tudd hé côté yaa ma laaj yu yooyu noonu jërëjëf is she old hell no Boja. Fanta Boja. Gambia flag bi ñaata couleurs ñoo fa nek mm, I think six. Six. Yeah. Ah, okay. Can you name them? Four. Four. Sorry, four. You already say six. Sorry, four. Can you name them? Red, white, green. Mm -hmm. Yeah, I think blue. <laughs> ah. I think blue. <laughs> su nekkee dafa am ID card dañ ko war a nangu su nekkee dafa am passeport dañ ko war a nangu xam nga nag Gambien yu bari ñu ngi fi ñu ngi dox te dañ leen war nangu seen papers yi ku design Gambien flag bi fa la fa naka naka ah, naka la tudda I don't know I don't know amuloo ku design Gambien flag I don't know ku doon draw maa bi Gambia bi fa la taxaw fekk ba juddu naa naka mi yaay maa ku yaa tudda naka maay Gaas Mbay Gaas Mbay waaw ok gaas xam nga Gambian flag. eh wax nga laaj nga bott geenam. xam nga Gambian flag. déedéet. drapeau Gambie bi lu den naawal noonu. ah xaw ma green ak lifin la de foog naa red. ñaata couleurs ñoo fa nekk. foog naa red la. white blue ak lan. green. Hmm. jeex na red bi la la stand fo. ah loolu na xaw ma ko si kaw a kaw. Hmm. si son bi. waaw. Ah. legi white bi lu weex bi la la firndel peace. Ah. waaw blue bi la la firndel Oh <laughs> ma sax. ma hmm. yo fekkee la yaa fi ni lo nek di jay fi. man dal mang ci fufu yi. Mhm. ci ebe yi. ci grill fisi mhm. ci dakar yi. karaab hmm. pasi sipa sipa ngu neningu yek pañ paañ so te te baat te baat bi mu ngi ko. yee mu ngi cool tey ah. waaw. tey nag hmm. woy bu correct. Ah. soo àggee si kër bi. abu wala faafa. waaw laa génnee kër gi. non woy. mère kii si lu correct dana génne kër gi. jeex na laare laare laare. wuyu laare laare laare. korka bëgg na Aysatu Aysatu bëgg na korka bëgg na ko banaan ko sama bébé bu koy xool lal ba dafay bonde soo la jeex na jeex na xam nga am nga am nga léegoo léegi nag ñu ne ah, ah, ah, géwél si luñ ko xamee dina ko def léegi suma sista dina dina dina woyal suñ beneen sista bi mu fii ca mu toj fi xoolal am kumbalaw bee gaas ay gaasa waaye gaas ay kumbalaw bee gaas ay gaasa waaye gaas yëngalal yëngalal yëngalal yëngalal yëngalal yëngalal yëngalal yëngalal yëngalal yëngalal yëngalal gàtt saf yaay ja du ko weeg soog njool mu tooy ah njool mu kaang <laughs> na waa bii moom bayawut eh eh eh eh non non non boobu bokkut boobu bokkut ah yow nag ah déedéet boobu bokkut ah boobu bokkut déedéet boobu bokkut yaa yi yëngalal yëngalal yëngalal kumbalaw bee gaas gaasa waaye gaas ay kumbalaw bee gaas gaasa waaye gaas caxugun gu taj eh, sama junni bi caxugun gu taj eh, sama junni bi caxugun gu taj ee kumbalaw bee gaas ay gaasa waaye gaas ay kumbalaw bee gaas ay gaasa waaye gaas wurajagin taj wuta cagin taj ja ra ee non xoolal dëgg dëgg ah tey toj nga fi nag tey moom dama fi xar rek tey danga fi toj waa léegi yow yow da nga maa xool nii rek nga naan ma ne nga wax loo wax noonu noonu rek waa dama ne gàtt saf yaajo du ko wéccoog njool mu keeng waaye kayanguloo di. Ah, ah kayanguma. déedéet. dama kayang wala kayanguma. kayang gaa nga ne la ca gannaaw. nga war a xaaba lii ah, nga du because dama ah. dama def sa after. am na yoo xam ne mu li programme xale la xale yi waru ñoo gis becco naka jaama rek yaa tudd naka Fatoumata Tamba hmm, Fatoumata Tamba mo suume ah suumay ket safa Tamba ah foofu nga am daal jeex na Ah, ah, ah ekangule eh, ekangule ah, sum sum amuloo ekangule ci jola serekunda la man waaw Gambian flag bi ñaata couleur ma fa nekk am four um red white blue, and then green. What does red stand for? <laughs> oh my God! <laughs> White. Um, peace. Blue. The river Gambia. Green. Agriculture. Who designed the Gambian flag? Uh, I don't know. Mm. Yeah. Really? Yes. You don't know? Hmm. Do you have any question to ask me? Um, why do you... <laughs> okay okay. uh-huh. <laughs> I don't even know what to ask you. Go ahead, I'm foolish. Uh, yeah, Lutanga foolish. Like, why do you even have to ask me that question? And then you said we are talking about business. Yes. And then that that's nothing like business. That was nothing like business in that question. It's not business for you, but it's business for me. For you. But yes. I told you said we were talking about business. Okay. Yeah. We are talking about business. Is that not business? Your business, not my, my business. business. Then what do you, what do you mean? Our business. Yeah. Ah. It should be my business because then I it's our business because it's a national issue. So you are a Gambian, I'm a Gambian. So it's our business. Okay. Anyways, thank you. You're welcome. But you can tell me who you know who designed it. Oh really? Yeah. I for my program, eight thirty. <laughs> okay. Can I ask you a question? Okay. Are you married? No, I'm not married. What are you waiting for? I'm single, and then I'm not searching. I didn't ask you whether you are <laughs> you are searching or not. I mean, I, I think. What I'm, are you waiting? Nothing. I'm waiting for the right. How many to. people knock uh, knock at the door? None of them. None of them. Cep xanaa booy da ngeen ragal kii nag. ah jaaxal ah, na ma de. ah da nga bëgg a ñëw. waaw kay. kaay leen. advertise nga léegi. <laughs> waaw yow waa Banjul nga nii. man waa Baara la. Baara. waaw ñoomi fële North Bank. waaw. ah ok lan moo nekk différence between ñoomi ak Gambia. waaw yëpp benn la de Gambia ak ñoomi yëpp benn la de. ah su naka la nekkee benn. ah korka nag bu ma joomal ah. flag bi ñaata collation fa nekk. <laughs> foo. Nembe. hi. red white blue white green. Ah, five nga fi wax ah? five nga fi wax de. five la waa five. nem ko ma xool. red white blue white green. ñaata collation nekk si Gambian flag bi. foo foo la. Hmm. red bi la stand fo. eh korka bàyyi ma nag. white bi la stand fo. korka. ku design Gambian flag ku doon binda ku doon binda maa bi Gambia bi fa la Gambian flag bi kuko design naka la tudd. xaw ma. Gambian flag. four. Name dem. red white blue green. Hmm. Uh, what is the red stand for? Sun. White. White peace. Blue. River. Green. Green. Huh? Agriculture. Ah. ah okay. Ku design Gambian euh euh lini bi Uh, naka? Map bi fa la taw nga who design the Gambian map Fala la taxaw. fan draw Gambian map bi fan la taxaw. kon nga how many colors are in the Gambian flag. four. Can you name them? Yeah. Red, blue, white, green. What does red stand for? <laughs> the red stand for sun. This one. White. Peace. Blue. River Gambia. Agriculture. Who designed the Gambian flag? I don't know. what is it? Safiture. Safiture? Yes. How many colors are in the Gambian flag? Four. Name them. Red, white, blue, red, green. Who designed the Gambian flag? Mr. Louis Thomas. Huh? Mr. Louis Thomas. Are you sure? Yes. Mm. Yes. Ah, okay. Uh, <laughs> no. <laughs> what is your name? Ismail. Who designed the Gambian flag? Mr. Louis Thomas. Ah. Yeah. Okay. Can you Uh, uh, uh, uh, tell me the meaning of red. What? Red on the Gambian flag. What, red stand for? Sun. White. Peace. Blue. River Gambia. Green. Agi Church. Abdallah kay. Abdallah. yaa ngi dem school. Abdallah. Abdallah yow loolu def si kër bi. wax rek ak jooy. ah dañ nga saaga meer yi nii. xale bi dafa goog de. ah xale bi dafa goog de siis. kike pas nana la de saga mairie ki dalu de def la bu ko jigi way ada wow, nga ki bu bo han touch it touch it yeb la ndew set up and bend over yeb ya ko jangal de xele bu ndaw jiko set up ak bend over ya ki yeah hmm. kan mo design gambian flag oh deug yalla xawmako nak ah? xawmako de ra collation nek ci gambian flag fo nem dem red, white, blue, a green. Red bila la time? Sun, sun bi. Huh? Blue? Blue River Gambia. White? Peace. Green? Agriculture. Okay. Ku draw wall Gambian map bi fa la taxaw? No, hade lo moom leerul moom bi ko fekke mo. ko. Tura nga? Yeah. Ya Yeah, yeah, yeah. Ya, ya. Gambia sen flag bi ñaata colas la Five. Can you name them? red, white, blue, green. Mm. Yeah. Ah, okay. Uh, what does the red stand for? Another one. What is your name? My name is Mohammed. Mohammed, how many colors are in the Gambian flag? Uh, four. Can you name them? Red, white, blue, green. Mm. Yeah. What does the red stand for? Uh, peace white? Uh, wait, wait, wait. Uh, I, I forgot the red. Uh, hmm. yeah. Okay. How about green? Green agriculture. Blue? Blue. Thank you. Yeah. Uh, how many colors are in the Gambian flag? Four. Can you name them? Red, white, blue, and green. What does the red stand for? Sun. White? peace and unity. Blue. River Gambia. Green. Agriculture. Who, who, who designed the Gambian flag? Mm, I forget the name. Ah, you forget the name. All right, thank you. Chanenjai. Chanenjai. Chani. Chanenjai. Chanenjai. What school nga nekk? Sense. Sense laa nekkoon. Ah, da Ah. Ah, okay. Ban yaa nga jeexal? 2017. Okay, ñaata collation nekk si Gambian flag Color? Red, white, blue, green. Okay. What does red stand for? Danger. White? Peace. Blue? Uh, River Gambia. Green? Agriculture. Who I la nag am ngeen ah, dugg naa si biir Ngor na gaay jox ma mbuba ak kaap sis nakam yaay ko. si loo nekk. Ya. Yang si holiday wala fi nga city? Gambian la. Gambian. Mm. Ah okay. So nak kan nga Gambia bi nak tay? Alhamdulillah. Hmm. Santa yàlla. Ya ah okay. ngi si Gambia yàlla re yàlla ya def fi rek. Wow. Si Gambian si Gambian flag bi ñata colas ño fa ñata colas. kolas? <laughs> <laughs> Kor ko na la gañ de. Waaw ma Gambian Gambian flag kolasi. yi. <laughs> Red, white, blue, white, green. Ñata kolas la? kor ko yow seetal ko sa bopp rek. Ah, what is the red stand for. laa lay lay la korka. wax ma rek. fii lañ ko tëjee nag ah, programme bi fii lañ ko tëjee suma gars yi suma sista xamul xamul xamul loolu noonu mu ngi nii xamul ko soo léegi lu ñu lu ñëw def rek mooy a ah, man de ma la waxal ansa si ma waxale ko tamit fii wasi soo suma gars yi lu ma leen doon laajte tey lu ma leen doon rek lu ma leen doon rek tey si bi mooy Gambien Gambien flag bi foo colas ñoo fa nekka mooy red white blue white green waaw xam nga white bi dafa repeat boppam understand nga soo boobu boobu benn kola la soo léegi red bi mu ngi stand for the sun naaj bi moo nekk red white uh, uh, peace and unity uh, blue river Gambia green bi agriculture so kan moo design flag yi Gambia bi. ku ko design. kooku moo ko design. am nga Gambien ay lu tax duma ko amee. ah yow da nga ko war a nangu soo xamuloo ko. <laughs> <laughs> suma gars lii laa leen amaleen tey Talk bi that was nice di waxaa suma sista moom tamit di seetaan suma show thank you so much Ciss thank you that that was nice being there. thank you so much yeah soo mooy loolu rek suma caméraman bi tey moo nekkoon nag ki nga xam ne ne moo nekk Seewu Mbanga suma joolaa bu ndaw bi mooy moo dee yaxa suma mobile yi so ñu sponsor programme bi ñooy inko li amaloon tey nag ñu ngi waajal weeri koor bi si weeri koor bi tamit ñu yoo leen ak yeneen épisode yu ees so Korka Street Talk la support leen ko fii mooy lan Korka Street Talk lu la jaaxal rek kaay fii ni so di invite yeneen sponsors yi tamit pour nga ñëw uh, support Korka Street Talk so li la leen amaloon tey nag bye bye see you next time bye bye Korka Street la pam ah kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay non kaay suma bro bi bro waaw bro da nga seetaan street talk waaw dama la dama la sera yee dama la sera dama la sera da nga seetaan street talk dama ko la sera yee dama la gën a ne si street talk lu ma gën a ne si street talk mooy sa entertainment ah. yeah like how um you make people fun you make ah. people laugh so that's the most important ah. yes ok léegi hmm. um, xam nga man laajte naa answer naa suma question si ba pare léegi bo maa ngi kulus léegi yow laajte ma question laaj la question waaw ñu close laajte ma question rek ñu close ko noonu. Um, loo ma laaj anything. Um, um, ok ma laaj la Inco. loo gis Inco. lu ma gis si gars yi mooy dañ ñëw Gambia they are employing more youth te ñu ngi sponsor tamit suma programme bi. so uh, I, I see the best part of it foofu noonu te ñoom tamit lu ñu nekk programme bi tax na ba seen business bi ñu ngi si another level so waxal yeneen sponsors yi tamit ñu ñëw. non dinañ ñëw dinañ ñëw. Ah. gi ah. bi suñu ah. kon jeex na tak so ñoom luñ fi def. kar macha allah jërëjëf waay may mag su ma kay li la amadoon tey si Korka Street Talk bi. bye bye see you next time seewu maa nga fayal suma téléphone bi weer bi dee na fay ne la sarari jëndal téléphone nga delloo ma suma téléphone seewu maa nga sewoma ma ngir yàlla ñaan naa la rek naa la yóbbu fële naka sen dëkk naka la tudar sa naka la bi tuddaat waay dama dem si deka bi ci checkpoint bi kam fenda ñu na mané do doo di stop seexu ma nga ah bye bye, li la lay amaloon tey si Korka Street Talk bi ma len di baye ak li ni bum waaw fine, silo nega, ngi ah maa ngi Yo rek. yangi yaa ni mel ni ku ku amut liggéey xanaa lo sa koos bi. man jeexal naa suma koos bi waaye maa ngi bugg a suma liggéey bi. mu ngi mel ni bagage yi yëpp a seer maa ngi toog. xanaa demuloo Inco. <laughs> lan moo Inco. da nga bëgg mooy Inco. waaw jógal ñu fii mooy Inco. soo ñëwee suñ place. Mhm. looy njëkk a bàyyi xel mooy. mooy Inco. maanaam INGCO. waaw kay am na nag ci fii. Mhm. place yu bari ñu ngi jël suñ kolo bi di ko mbuboo. waa pire pire ji fii la. bu ko jaawaale. Mhm. soo ñëwee rek seetal brand bi. lii mooy di Inco. waaw su nekkee kapinta nga. mécanique bi sax kaa ñu dugg si biir kontaan naa de fii mooy inko soo fi ñëwee rek kontaan fii nag Jimpex mooy seen maakaan bu mag bi waaw soo demee Sukuta traffic light ñu ngi fa amee tamit beneen branch maanaam Sukuta traffic light am nañ fa beneen branch am nañ fa beneen branch ak inko adduna bi mu ngi si sa loxo